vidéo bi noonu circulé depuis tey ci suba ginnaaw a coowal Bougazelli bi fi jotoon xew atum 2019 ñu sulliwaat coow looloo neenu gis nañ nag yàggul dara Bougazelli borom faux billets yi borom loxo ci poste jotoon nañ ko fay bàyyi ba mu indi woon ab bruit waaye daa mel ni vidéo boobu noonu indiwaat na beneen tournée ndax gis nañ vidéo bi nga xam ne nit ñaa ngi koy partagé ci li nga xam ne mooy réseaux sociaux yi gis nañ sax xibaar bu ñuy xamale ci yéenekaay bi ñenn ñi yéenekaay yi ko partagé di xam ne rek ne ki nga xam ne mooy Bougazelli nee na day porter plainte ndax du porter plainte kenn Aziz Mbaye Abdou nag nekk gendarme boo xam ne foofee ca brigade de la nekk dëkk Pikine moom mu noon moo noonu ak caméra ci mbir moomu noonu lu ci am ba am moo bu dee plainte bi daal mun nañ ne ñu koy toppee ci division des données à caractère personnel d'après li ñu mën a wax mooy mooy vidéo boobu nga xam ne jot nañ ko partagé moom moomee nag plainte boobu noonu ci kaw Abdou Aziz Mbaye nekk ab takk der si la koy teg ci kaw ndoddam ak ginnaaw bu ñu gisee vidéo bi ci atum 2021 bi tey ci ajuma bi nit ñaa koy partagé bu baax a baax donte coow loolu noonu depuis 2019 la woon li ci am ba am mooy ne mbokk yi dinañ leen toppal xibaar boobu noonu jàpp leen ne daal Bougazelli moom vidéo bi ñu partagé fu mu ne nii yeewaat na coow fu mu ne nii askan sunu gaal ngeen jëf